ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di dajawaat ci ab néegam fas yéene jël benn bind ci li ñuy tuddee buntu fiq yi ñu ci topp téere bi di risaala bu ibn abi zayd al xayrawaani ñu yegsi woon ci fanweereelu bunt bi ak ñeent muy baabun fil buyuu fanweereelu bunt bi ak ñeent ñu ngi noonu baabun fil buyuu su dee yaa ngi yor sama rubaani bi nga xool ci page quatre cent quatre-vingt-quinze ca première ligne ba rek ca kaw am na traduction yoo xam ne ñu ngi ci soixante-dix-sept ñu fàttali ne suñu dimanche bi mooy tombeeg ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci li ñuy tuddee zul qaada maam yi di ko tuddee diggu tabaski mu ñu woon ne kon suñu bisu suba bi incha allah di altine moom mooy séntu bu njëkk ci weer woowu ñuy tuddee zul hijja muy weeru tabaski su feeñee talaata ja mooy nekk bis bu njëkk ci weeru tabaski su feeñul ñu mottali ko muy trente kon mbokk bunt bi ñuy ubbi mooy buntu buy jàngale am njaay mu ne baabun fil buyuu bunt la ci njaay yi wa ma shaakala al buyuu ak la nga xam ne daa nuroog njaay méngoog moom na doon location yàlla yu demee noonu bu dee li nga xam ne dañ koo jàng day wax ni wa axalla allahu albaya wa xarama riba yàlla ara yàlla daganal na njaay yàlla araamal na riba wa kaana riba al jahiliya fi duyuun nekkoon na ribaak jaahiliya ca bor ya imma an yaqdiyahu mooy imma nga fay ko wa imma an yurabbiya lahu fiihi a walla boog nga daldi koy fulal la nga xam ne moom la la yoraloon mbokk kon bunt bi lim ñuy jàngal ab jullit mooy ki nga xam ne mboolem dundam da ko war a tënk ci li neex yàlla am na ay jullit ñu jàpp ne islaam mooy bu julli jotee nga julli bu woor jotee nga woor génne zakat dem makka waaye mbokk loolu déggin la bu gàtt lool njuumte ci déggini lislaam islam système de vie la mooy sa dund gépp diine ji dalay topp naan la defal lii bàyyi lii lii xaram na bokk na ci loolu li doomu aadama yi gën a soxlante seen biir muy jëndante ak njaay islam da ko wutal ay ponk kene nii la war a tëdde bokk na ci bind biñ njëkk a jàng mooy suñu borom mu ne dafa daganal commerce araamal riba ndax suñu borom bi mu araamalee riba yéeféer yi ana luñ doon wax waaw Muhammad ma bëri solo kii dem jënd masalan benn xar jënd ko cent mille daje keneen jaay ko ko cent cinquante mille am ci bénéfice cinquante mille kay ñëw di leb si nga lebal ko cent mille bu lay fay fay la cent cinquante mille ban différence moo nekk ci loolu gis ngeen loolu bañ ko waxee suñu borom tontu tontu boo xam ni jullit da koo war a yóbbaale ci mboolem lu aju ci diine tontu li mooy axalla allahu al bay bay a wa xarama riba yàlla daganal commerce yàlla aramal riba looloo tax mbokk jullit amul lenn ci diine lu yàlla araamal nga naan mais lii nag nangam nangam yàlla ko araamal jeex na doonte ne borom xel yi moom buñ gëstoo daañu xam ne kay di commerce njëriñ ba muy amal nit ñi ak risque yi muy jël bokkul ak ki yor xaalisam rek toog amul benn risque ki ñëw lebal la un million nga tegal ko ci un million quelque cent mille dix mille nga tegal ko loolu mbokk ñu bàyyi xel ci loolu riba boobu li ñuy jëkk a wax mooy daan jàng forme yi ci nekk waaye xamal ne de manière générale suñu boroom tëkku na ci tëkku loo xam ne néew na ci bàkkaar bu mu ko tëkku bal am na ñuy wax sax ni kii di imaamu Malik benn waaye gis na ku màndi di tërëf di dagg ay saaga mu ne su dee ni am na lu gën a bon naan sàngara day sama soxna fase naa ko biñ ñuy wax ko imaamu Malik mu ne ko yaakaar naa kon da sa soxna si day tas ndax gisuma benn bàkkaar bu yàlla subhanahu wa taala ne yéen ñi koy def fa'zanu bi harbin min allah wa rasul préparé leen guerre bu jóge ci yàlla ak yeneen ci yéen lekk ko ci riba yi te loolu mbokk mi ngi noonu su ko defee bu doon yeneen bi moo fi nekkoon wala ñu ko représenté képp ku ñuy gis ngay jëflante riba dañuy dal sa kaw teg ci yow ay amande loolu bu amul it xamal ne suñu borom nee na ñi nga xam ne dañuy lekk riba suñuy dëkk yombal xiyam seen bàmmeel dañuy mel ni ku seytaane daaneel te it islam reconnaître ni seytaane dana dugg ci doomu aadama daaneel ko muy fëriñ fëriñ yi di wax yu kenn xamul islam reconnaître na loolu ba tax suñu borom ne lekk ko riba yi bu ñuy dëkki seen bàmmeel dañuy mel ni ki ñu gis ne jinne da koo sadd muy caddi caddi noonu la ñuy dëkkee bàmmeel loolu mbokk kon seen mbir naruta baax yonent bi alei salaam bokk ko ci juróom-ñaari bakkaar yi alagaati ñu bàyyi ci xel bu baax avant ñuy jàng lan mooy riba kon suñu borom moo yombal ak njaay ngir doomu aadama yi di mën a am lañu soxla sans problème ndax bu njaay amul woon da ngay gis nit kii sa mbokk julit yor dara pour nga dem di ko ñaan day jafe am maana ku nekk am na droit ñëw ne ndax doo ma jaay nangam ki am soxla it am na droit jël matériel ndax du ngeen jënd nangam loolu di yombal ku yàlla subhanahu wa taala yombal ci li tax échange di am ci doomu aadama yi gannaaw njaay islam reconnaître ne sarax booy sarxe jox ko miskin yi wala may goo xam ne da nga koy may la nga xam ne ay nit lii lépp moom islam dana ko reconnaître doonte ne njaay moom yi tamit xamal ne li yàlla ne yàlla daganal na njaay rek du yaxu aay bi la ñuy jël utiliser ko ci lépp déedéet du njaay yëpp a dagan de islam day xool waa ji jaay masalan ndax li muy jaay moo ko moom yàlla daganal na njaay ndax am nga droit dem yeewi xarum jaambur dem jaay ko déedéet loolu daganul ci yow masalan ñaareel ba la ñuy jaay ndax jullit am na droit dem jaay sàngara tontu la yéen ñëpp xam ngeen ne déedéet naka noonu it da ngay gis ne xatta ka ñuy jaayanteel islam du nangu ñuy jëflante ku xerem neexul ak ay xale yi xàmmeegul dara bu dee li ngay jaay am na valeur islam du nangu ñu wéyal njaay mel mel noonu mu am kon ay yeneen mbir yoo xam ne aju na ci gannaaw yàlla araamal yàlla daganal na njaay rek ça ne veut pas dire que kon benn carte blanche la ci nu la neex nga koy defee déedéet dem noonu mu ñëw nag ci la nga xam ne mooy riba riba suñu borom mu ne yaa ayuha alladina amanu la taakulu riba adaafan mudaafa mu ne naka jaahiliye daan defee mooy ni ko banque yi tey di defe rek jeex na mooy dañuy ñëw lebal la suñ la lebalee bor bi dañ ci teg dara tey lebal na la cent mille francs danaan la cent cinquante mille nga may fay sun maam yi fii lañ ko daan def lu ñu tuddee dërëm tànk te ba tey soo demee ci àll bi jamonoy nawet bu taree am na ñu ko fay def lebal li dix mille bis booy fay quinze mille ngay fay léegi cent mille la la lebal nga war ko fay cent cinquante mille kañ mooy bu weer wi dee weer wi dee ñëw mu ne la fay ma nga ne ko óoma mu ne ah kon léegi cent cinquante mille laa la lebal kon deux cent mille nga may fay gis ngeen ko defee kon bor boobee mu la lebaloon au départ di cent mille léegi double na ba deux cent mille ba beneen weer dee boo ko fayul mu ne la ah kon xamal ne léegi kon deux cent mille laa la lebal kon léegi deux cent cinquante mille nga may fay gis ngeen loolu moom la borom bi adaafal mudaafa islam ñëw araamal loolu intellectuel bi ne la mais soo jëlee sa xaalis leble ko mais xaalisam day perte de valeur am avec l'inflation kaza wa kaza suñu borom yàlla xamal ñu ne bor bi nga leble bor boobee jaamu yàlla la kon pertoo ci mbokkum jullit mi jaaxle ñëw nga lebal ko dix mille cent mille un million dem na deux ans trois ans cinq ans na am cinq un million lañ ca mënoon réaliser ca cinq ans yi ci gannaaw bokkul ak léegi nga jàpp ne da ngaa perte déedéet temps bi mu def ci moom yépp loolu ak tuyaaba la su ngeen ba ñëw na ci ay xadis ne ki lebal doomu aadama bi bor bés bu nekk daañ ko bindal ne sarxe ne du toll na bor bam leble bal lu safaanoog la intellectuel bi di xalaat moom moo di ne sama xaalis lu mu fa nekk dafay gën a yàgg damay gën a perte suñu borom mu ni ki nga lebal bu dee dafa am jafe-jafe pour fay la sax baal ko bor bi benn yoon in kaana zu usratin wa nazratin ila maysara tant que mi ngi am jafe-jafe muñal ko ba baa mi am yombal soo demee ba jàpp ne mënu ko fay baal ko ko benn yoon suñu borom nag nee na baal ko ko looloo gën ci yéen gis ngeen looloo gën ci yéen lu tax mooy bis mi ngi ñëw ñu dellu ci yàlla te waa ja nga xam ne dafa baale woon loolee da ngay gis lan la koy jural ñëw na ci benn xadis rasul sallallahu alayhi wa sallam dañu nettali bokk nañu leen jiitu woon ci diine benn waay boo xam ne diineem daal diina ju woyof la woon diina ju woyof la woon mu dajeeg borom bi yowmal qiyaama nag waaw yow suñ caam yow day xéewaloon naal la waaye yow léegi nag lan nga def ci sama diina ji lu ko ah suñu borom man day xam naa ne samay jëf lay doy na waar waaye nag yàlla day amoon naa samay xale yu ma daan yónni ñuy commerce li ma leen daan wax képp koo xam ne mi ngi ci jafe-jafe yombalal leen ko ngir yàlla yombalal ñu yomal qiyaam suñu borom ne ko kon yombalal naa la demal kat bi aljanna kon loolu la jullit di séentu ci heure boo xam ne jël na alalam di ko joxe xamal ne perte ma amu ca lu bor ba yàgg yàgg bu ñu la ko fayee bu dee da nga koo far bale yëpp xamal ne xayrun lakum loolu suñu borom wax wa an tasaddaqu xayrun lakum in kuntum taalamun kon loolu mooy li jëkk léegi nag suñu borom bu buñ jëlee beneen bind mu ne wa riba fi gayri nasi'a bu dee riba bu bokkul ak bor boo xam ne nii dañ koy yeexe bay'ul fiddati bil fidda yaddan bi yaddin mutafadila bokk na ci ngay jaay xaalis ak xaalis di ko jokkalante waaye la kee indi ci xaalis moo ëpp la kii indi ci xaalis xaalis bi ñu ngi ci namm xaalis piir bi ñuy def ay lam walay jaaro wa kazalika zahabu bi zahab lool it la ñuy wax ci or ki koy échanger di ko jaayante ci beneen or fekk ne da koo ëppalante wala yajuusu fidda fiddatun bi fidda du dagan ñuy jaayante xaalis ak xaalis wala zahabun bi zahab wala or ak or or ak or illa mislan bi misl lu dul day toll kem bu tolloog même kem ba ngay jël ca waaja yadan bi yadin mu nekk loxo ci kaw loxo wal fidda bi zahab bu dee nag xaalis ak ak or la ñuy jaayante loolu it riba la illa yadan bi yadin lu dul dafa nekk loxo ci loxo mi ngi noonu mbokk dafa am lu ñuy tuddee riba nasi'a moom lañ jàng sànq mooy riba bu aju ci bor nga xam ni la nga lebal waaj ba mu lay fay dalaa fay lu ëpp loolu boo ko xamal ni suñu ma suñu génération bi yàlla daf ñoo nattoo yàlla daf ñoo nattoo loo xam ni suñu maam yi day yégguñu ci suñu maam yi mosuñu koo xam nga noonu suñu maam yi mosuñu koo xam ca mooy li ñuy tuddee ay prêt bancaire su maam yi jàpp naa commencé par man ak lépp ci yéen du suñuy bàyyi du suñuy maam ku mos a taxaw ci bàkk ña daan def riba xamul xam nañu leen ña daan def riba xam nañu leen mais bi tubaab bi ñëwee indil ñu système am dañoo jël prêt bancaire def ko muy lu normal moo dem ci bitig ba jënd sukkar ñoo yépp loolu nag mbokk nañu xam ne danger bu rëy la ndax riba bu doon la ca garaaw mooy yow nga lépp la ñu fay lu la ëpp bu doon loo rek jàpp amul benn problème waaye yonent bi alayhi salaam dane yàlla rëbb na kiy lekk riba ak ka koy jox riba bi ak ka toog di bind mbir ma ak ña toog di ko seede ñoom ñëpp yàlla rëbb na leen loolu kon moo tax prêt bancaire nañu xam ne lu xaraam la ci quatre-vingt-dix-neuf virgule nangam des banques ni ñu leen xamee banque du la lebal lu dul teg na ca dara léeg-léeg it mu nax ay nit ñu naan non taux bi ñu ci teg du dara ay trois pour cent la ay nangam pour cent la mbokk lu yàlla xaraamal un pour cent cent pour cent ñoo ci bokk yi lépp lu xaraam xaraam ba nga xamee nii dem ca banque ba di lépp jullit waru koo def lu dul ci extrême nécessité ci loo xam ne munta ñàkk ci lor goo xam ne nii borom xam-xam ya xam sa situation ñoom nga cay mën a diisoo waaye daal ngallaawaay nañ bàyyi xel ne bunti bii ñu ubbi tey koñ boo dem banque yaa nga fa taux yu nekk ñu ngi koy proposé lebal la oto lebal la kër lebal la nangam lebal lu kenn xamul yooyu yëpp mbokk ay mbir la yoo xam ni. nañ ci bàyyi xel jullit du dugg ci lu mel noonu mu des beneen forme riba mooy li ñuy tudd ribal fadl waa ji dafa am xaalisam pur mu nekk lu ñu liggéey wala lu ñu liggéeyul mu gis koo xam ne dafa yor beneen xaalis maa ngi jublu ci xaalis ay jaaro wala lam xaalis pur léegi ñu war a def échange échange boobee islam mën na ko daganal waaye ci ñaari charte benn charte bi mooy poids bi nga indi ci xaalis poids bu toll noonu rek laa lay jox waaye islam du nangu ne yow sa xaalis moo gën a rafet kon cent grammes nga ci yor donc cent vingt grammes laa lay jox déedéet dañuy tolloo muy benn ñaareel bi l'islam du nangu jox ma sa cent grammes xaalis yi bu subaa ma dem indil la cent grammes yu toll noonu wala sax ba ngoon wala ba sànq kañ lay dagan mooy kii day indi xaalisam kii indi xaalisam mu jox la nga jox ko loolu dana dagan mi ngi noonu ma doon kii xaalis bu ñu liggéey la ak xaalis bu ñu liggéeyul ala kulli xaal na yemoo doon loxo ak loxo liñ wax ci xaalis loolu la ñu wax ci or or ak or it na ko noonu jigéen ñu bari dañ ci def ay erreur ngay dem am sa or bu yàgg nga dem ci tëgg bi proposé ko pour mu jox la chaîne bu bees ñu peser sa or mu nekk masalan cent cinquante grammes or mu jox la chaîne boo xam ne à peu près cent grammes d'or lay doon loolee mbokk du dagan ci l'islam su boobaa l'islam danaan la jëlal sa or nga jaay ko ba am xaalis liquide ñëw jënd ooru ci waaye bu ko jëndee or bi directement ñaareel ba itamit wax naa la or ak or dafa war a yem xaalis ak xaalis dafa war a yem am indi surplace mu des nag or ak xaalis waa ji am na cent grammes d'or kii am trois cent grammes xaalis ñu waxtaan ba juboo jox ma sa trois cent grammes xaalis yi ma jox la cent grammes d'or islam danaan d'accord waaye bi charte am indi ñu def ko léegi def ko léegi am ma jox ma sa xaalis bi ba ngoonee mi indi or bi wala jox ma or bi ba ngoonee mi indi xaalis bi islam du nangu loolu lan moo waral loolu mbokk or li nga xam ne mooy or ak xaalis seen prix day varier ci marché bi depuis ba l'islam sosoo ba léegi comme nag prix bi day varier tey yow mën ngaa ñëw benn gramme or di représenter dix grammes xaalis ci waxtu wi ñuy waxee ñu dem bu suba rek un gramme d'or léegi représenter douze grammes xaalis wala contraire bi loolu da ngay gis ne moo tax islam tere loolu pour nga gën a mën a dégg tey da ngay xool lu mel ni le dollar tey dollar mën nañoo xëy tey ñu ne ñaata la ñu ne dollar bi mi ngi ci cinq cent cinquante ñu ne kon léegi nañ jëflante ah man jox ma cinq cent cinquante dollars léegi léegi jox ma la nga xam ne mooy mille dollars mu nekk wala cent dollars léegi mu war a nekk taux tel léegi bu subaa man ma indi xaalis ca dollar bi cinq cent cinquante la ñu xëy suba dollar bi yéeg six cent lu ñu def dollar bi six cent donc mille dollars yi six cent mille lay lay jar tey te démb cinq cent cinquante mille la doon jar ndax loolu du indi fitna ah kay di indi fitna ca ñi mille banques yi xam nañu ne li yonent bi alayhi salaam waxoon yeddan bi yeddin da nga naan exagéré la ndax waa ji mën na koo jël dem këram indi waaye yi mille banque da ngay gis gars yi xëy suba ranke banque bi change baa nga ne ñu affiché dollar cinq cent cinquante ñuy rang di ñëw di rang di ñëw avant une heure de temps ñu change taux yi ñun dollar bi daanu na cinq cent quarante la léegi wala yéeg na cinq cent soixante dix léegi loolu da ngay gis ci ay heures yu ndaw loolu nga xam ne kon islam dafa raw la nga xam ne mooy doxalinu jamono moo tax lépp loo xam ne ay échange la te li fi représenté léegi xaalis pur ak ak ak ak or mooy monnaie yi nga xam ne moom la ñu mënee woo masalan lu mel ni dollar bi tey jii da ngay gis par rapport ak la nga xam ne mooy CFA bi dafa am lii dafa am lu mu représenté lii am lu mu représenté mën nañ koo weccante ëppalante ci waaye bi charte na doon am indi mu bañ a doon lu ñuy retardé ndax la nga xam ne moom la war a moom la mën a jur te la nga xam ne mooy ay fitna kon incha allah yaakaar naa bala ñuy sori est-ce que du ñu bàyyi mbokk yi bu dee am na question yu ñu bañ gaaw a fàtte bala ñu dugg ci wàllu lekk yi naam ci wàllu li ñu doon wax échange bi ñu jot a wax bi ndax am na ci koo xam ne waaw waaw mu ne da nga ko lebal 1000 francs un mois après waaw waaw waaw naam naam jamono bi sa xaalis nekkee ci moom nga koy muñal loolee ak jaamu yàlla la moo tax mu ñëw ci yenn riwaaye ne da ngay mel ne ku sarxe som bu tol noonu ba baa mu lay fay bu la fayee yàqalu la dara boo ko muñalee ba mu fay yàqalu la dara amma nag bu doon tene ne daa nekk ci jafe-jafe nga baal ko su boobaa da ngay gis ne suñu borom mu ne sag fay ci yàlla la nekk te loolu mooy la gën ci yow loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw naam waaw naam waaw bismillah waa ji def ma lebal dama ko lebal cent mille bi mu demee Italie di ma fay taux bi ma yónnee bi ma ko jotee am na lenn loo xam ne teg na ko ci su dee ne waa ji nga lebal moom ci boppam moo cooba réew lam lay fay mu am loo xam ne nii da ko caa teg islaam nekkul di bañ loolu islaam li muy bañ mooy yow nga sàkku ko ca wala nga manifester ko ci wane ko ne ni boo ci tegul dara dootu mën a lebal waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoom leboon ay giléem pour bu giléemi sarax yi ñëwee ñu jox leen ci giléem yoo xam ne à peu près ñu ngi doon toll ci ay trois ans ak yu demee noonu bi mu yebalee kenn ci saxaaba yi Bilaal wala keneen kooku dem na ko ah giléemi sarax yi day yu mag yi rek lañ fa fekk yonent bi alei salaam ne ko jëlal giléem yi mag nga jox leen ci gën ci nit ñi mooy ku gën ni muy fay loolee kon bu doon tene ne moom ci boppam xëy na calculer taux bi exact day xaw a jafe ba mu la yónnee cent mille yi teg na deux mille trois mille nangam nangam te loolu moom ak coobare boppam la su boobaa du ñu wax ne yow da ngaa jël riba bu dee nekk yëngale moom ci xol bu sedd la ko defee amul benn pression bu nekk ci moom mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw da ngeen ne da ngeen ne jëflante waxante ci xar mi ba jubal ci prix mu ne bu subaa danaa fay si loolu amul benn problème ndax jënd ak jaay boobu bokkul ak échange ay xar ak xar lu ñuy xar ak xaalis bokkul ak échange donc ki nga xam ne li ngeen waxaale ba juboo mën nga ko yónnee xaalis bi mën na laa jox xar mi nga doog ko yónnee xaalis bi mën nga ko avance mu doog laa yónnee mu doog laa yónnee xar mi loole moom bu ngeen ci dëppoo amul benn problème li ñuy wax nii kay mooy loo xam ne ay change la ci ay matériel yi nga xam ne nii ay lu ñuy jëfandikoo ci monnaie mais bu dee jënd moom loolu yi nekkul ci wàllu googu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam imma waaw waaw mu ne imma da koy fay wala boog mu ful ko da koy fay wala mu ful ko imma an yaqdihi wa imma an yurabbiya lahu da nga naan fay ma wala mu double bor bi loolu la naam bismillah naam alayhi salaam pour ne léegi da ngay dem ci banque bi nga ne ko kër gaa ngi nii léegi tabaxal kër gi soo tabaxee kër gi ba pare nga seet la nga xam ne ni mooy sa moomeel nga jël ko may doog a doon loo xam ne lu may jël sama kër ala kulli xaal bu doon te ne ne loolu moom day doon loo xam ne ñoom du xaalis buñ la jox ñoom ñoo jël seen risque yow ndigal rek nga leen jox ci ne terrain baa ngi nii ñoom ñoo indi seen xaalisu bopp ñoo tabax seen xaalisu bopp exploité la nga xam ne nii moom mooy kër ga ba jël seen xaalis fekk yow amoo ci benn risque amoo ci lenn luñ lay topp loolu duñ ko mën a boole ci bor boo xam ne day nekk bor bu riba amma bu dee ne da ngaa dem négocier ak ñoom ñu ne kat kër gi nangam bi tant de millions lay jar yow yaa jël engagement bi doonte ni ne ñoom joxuñu la xaalis bi mais bu ñu fa investir it yow bor bi mi ngi gàllu sa loos su boobaa dañ naan bor la boo xam ne yaa ko jël mais bu dee ñoom ñoo jël seen i risque cent pour cent amul lenn loo xam ne gàll nañ la ko ci loolee su boobaa dañuy gis ne duñ ko mën a boole ci bor boo xam ne ni dafay jur intérêt wallahu subhanahu wa taala aalam naam voilà ku li xaal ni mu laaj rek laa ko tontoo waaye doonte ne ne banque moom ku la xam ne ay mbiram moom néew na muy def loo xamee ne nii du jël garantie yi ca ëmb yëpp waaye daal ala ku li xaal bëri na daal ñoom dañ naan la yow su yoon néew ci amu ci benn risque jox ñu ndigal rek ñun ñooy tabax ñooy luye su suñ xaalis jeexee ñu bàyyi laaj sa kër loolee moom dañuy gis ne gisuñu ci loo xam ne nii dañ naan waa ji jël na bor bu ànd ak intérêt wallahu subhanahu wa taala aalam naam mu leb ma waaw bisimilah naam waaw ndax dana daggan ci jullit mu am benn marchandise masalan téere bii dama koy jaay am ku ñu ñëw di jënd maanaa bu dee da ngay jënd day dix mille laa la koy jaay ñu ñëw ne dañuy leb maanaa bu dee da ngay leb moom douze mille laa la koy jaayee waaw loolu moom borom xam-xam yi dañ ci am ixtilaaf borom xam-xam yi dañ cee am juuyoo bokk na ci suñ jamono yi mujj dellukaay yu mag yu borom xam-xam yi di dellu yu ko mel ne cheikh Nasiruddin Albani rahimahullah ak cheikh Ousaymin rahimahullah waaye ñoom ñaar dañoo juyoo ci masala boobu comme na ca borom xam-xam yi leen jiitu juyoo ndax ci déggin ba ñu déggee yonent bi alei salatu wasalaam mu ne man baa bayte ni fii fi lbaya fa lahu awkasuhuma aw riba kii joxe ñaari prix ci njaay la gën a néew moo koy ñeel wala ma ngay lekk riba kon boo nee dix mille te yow douze mille leb dix mille bu moo dagan douze mille ba lebul lebul donte ne ni yeneen borom xam-xam yi ñoom dañ ne déet loolu mooy da ngaa wax ñaari prix ci benn njaay na waaye ñëw nga ne ko dix mille la teew douze mille lépp mu jël ca leeralu leen ko mais yow am nga droit kii ñëw di jënd nga waxaaleeg moom ba dix mille nga jaay ko dix mille laa la ko jaay kii ñëw na day lépp nga waxaaleeg moom ba douze mille nga lebal ko ndax ci benn téere bi tey mën naa waxaaleeg ki jaay ko ko dix mille keneen ñoo ma jaay ko ko douze mille keneen ñoo ma jaay ko ko huit mille ñu ne comme différence ni mu mën a amee ci ci prix de vente bi noonu la mën a amee ci bor ki ñëw ne la day jënd nga ne ko waaw dix mille ki ñëw ne day leb nga ne ko waa douze mille ala kulli xaal kon ci gàttal borom xam-xam yi daal dañu am ixtilaaf ca loolee ba nga xam ne kon du ñu am yaqiin ci wax ni loolee dafa doon lu xaraam bal am na ñoo xam ne lañ koy firi mooy li ñu tuddee bay ul ayna bay a tey ni fi bay a mooy ñaari prix ci njaay mooy waaj nga jaay ko livre bi dix mille mi ngi noonu ba pare mooy jëndaat ko ci moom te la nga xamee ne nii mooy huit mille mooy lebal ko téere bi ci dix mille jëndaat ko ci moom ci huit mille ñu ne loolu bay ul ayna la ndax lu waral loolu moom mooy moom dala yoral dix mille ci huit mille nga ko jox am na ñoo xam ne foofu la ñuy dugal xadis bi waaye daal ci gàttal li ma la mën a wax ne borom xam-xam yi dañu wuute ci masala boobu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam léegi da ngay def transfert nga ne bi nga ñëwee ñun le taux bi fii la toll léegi loolu su boob ah waaw waaw ala kulli xaal daal li nga xam ne nii moom la ñu war a def moo di ne bi nga ñëwee di verser fan la dollar bi toll fan la euro bi toll taux boobu dañ ko war a xam verser na un million lan la méngool mooy temps waa jën koy waa jën koy jox moom na doon tey suba lu mu mën a doon mu xam ne taux boobu ngeen def échange bi taux boobu rek lay jox su dollar bi yokkoo su dollar bi wàññeekoo lépp moom loolu du changé ndax ki nga jëflanteel directement kooku nga defal échange bi mooy jox nga ko CFA lim la yoral mooy dollar dollar bi taux bi la toll loolu la ñu war a bind kam kay joxit loolu la koy war a jox na doon dollar bi yéeg na na doon dollar bi wàcc na lii daal mooy la nga xam ne moom la ñu war a def mi nga doon wallahu aalam naam bismillah naam naam naam ala kulli xaal doomu aadama bi liñ ko nax loolu moom du dugg ci riba temps yi rek maa ngi ciy dégg benn waay bu koy wax nee ñoom banque bi ñu nekk dafa ñëw gis ñu dugalal ko découvert mu ñëw mu ne leen lii nag ñu ne ko non gars yi koy demande dañu bari ñu ne kon nañ ko far dugalal ñëpp rek benn yoon moom daal bind lettre na leen man bugguma ko loolu bu leen ko dugal ala kulli xaal daal la nga xamee ne moom sakku woo ko. ñoom ñoo ko jël jox la ko ca mënuloo ko bañ a rejeté ñoom ñoo la tooñ waaye tamit la waajoo jey def moom la ñu war a def muy bind lettre jox ko seen responsable ne leen découverte yi bugguma ko parce que découverte bu la ko banque joxee fokk mu teg ca dara loolu kon mi ngi noonu ah maa nag la nga xamee ne moom lor moo la ca yóbbu su boobaa dañ naan la amoo ca bàkkaar waaye nag defal ay jéego pour loolu bañ a amati wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw yaakaar naa kon ñu ñu ñu ñu jël beneen bind mu ne wa taamu min alxububi walqutana wa shibhiha mooy ñam yi nga xam ne dafa nekk ci pepp yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo wala la nga xam ne nii moom mooy ay légumes yi ñu wowal wa shibhiha ak yu mel noonu mimma yu daxar te yoo xam ne dañ koy denc min quutin ci li ñuy dunde aw idaamin wala loo xam ne dañ koy rëndoo mooy di ko def rënd di ko teg laa yajuusul jins minhu bi jinsihi du dagan benn parti benn melokaan ca ñoom ca beneen melokaan bu mel ne moom illa mislan bi misl lu dul mu doon kem bu yem ak même kem yadan bi yadin doon loxo ak loxo wala yajuuzu fiihi taxiir du dagan ñu cay def la nga xamee ni mooy ak yéexe wala yajuuzu taamun bi taam du dagan ñuy échange ñam ak ñam ila ajalin ba ci beneen dig kaana min jinsihi dafa nekk ca melokaan ba ngay def échange aw min xilaafihi wala lu wuuteeg moomu kaana mimma yu daxar na doon ci lu ñuy denc aw laa yu daxar wala fekk ni duñ ko denc li nga noonu mbokk fii day wax lu mel ni lam doon wax ca or ba ak xaalis ba muy bu dee ñam yi ak façon yi nga xamee ne nii ay ñebbalaak ay yu demee noonu yoo xam ne nii mënees na koo denc lu bari wala façon yenn ci lujum yi nga xam ne mënees na koo wowal ba pare denc ko dencin bu yàgg yu mel noonu lay wax ne heure boo xamee ni dañ cay weccante pepp la ak pepp na doon ay ñam yeeg ñam bi na doon ay lu mu mën a doon ci yi ñuy jëfandikoo toujours dañ koo war a yemele allahuma lu dul bu dee dafa safaanoo kii indi masalan dugub kii indi ceeb su boobaa mën nañ ko échange ëppalante waaye nag kenn du ko yéexe ci place rek lañ ko mën a changé masalan tey lu bari ci waa Dakar liñ gën a xam mooy ceeb dañuy gis benn kilo ceeb ay siyaam ak wala ay riz entier gi dama noonu ñu ne la kilo bi cinq cent lay jar nga am beneen kilo par exemple ñu ne la trois cent lay jar léegi ndax waa ji am na droit moom ñëw ci boutique bi ne ko kat man am naa fi ñaari saaku ceeb ci ceebu non parfumé dama bëgg ma jox la ko nga jox ma benn saaku ceeb boo xam ne nii ceebu siyaam la wala kaza wa kaza islam danaan déedéet maadaama ceeb ak ceeb la dañ ko war a yemele ak façon ceeb bi nu mën a mel wala dañ ko war a yemele léegi waa ji moom dugub la indi kii moom yor ab ceebam ndax am nañ droit mu jox ko masalan deux cent kilos dugub mu jox ko cent kilos ceeb naam loolu dana dagan waaye bi charte mooy ñu def ko lii ci bañ koo xaare ay ma dem ba ñëw ak ay ma ngoon te yéen ñëpp yéen a gën a xam li tax mooy kilo ceeb tey jii def valeur am ak kilo dugub toujours mën na changer dugub mën nay dem di jar cent cinquante mën na dem ba jar trois cent ceeb bi itamit naka noonu moo tax islam ni lépp loo xam ne dañ koy échange ci ay pepp lépp loo xam ne dañ koy échange ci ay loo xam ne dañ koy mën a denc lu yàgg di ko mën a rënde su boobaa kenn amul droit di ci def lu dul loo xam ne dañ koy yemele bu dee ne dañ koy def échange bu dee dafa safaanoo it mënees na koo ëppale waaye bi charte mooy ñu def ko échange loxo ci loxo ñu jël ci beneen bind mu ni wala ba'sa bil fawaakihi dara nag amul problème ci wàllu fruits yi wal buqul ak wàllu légumes yi wa ma la yudaxar ak loo xam ne kenn du ko denc ñu weccee ko mutafaadilan gën a leen ko gën a leente ko wa in kaana min jinsil waahid doonte ne na ñoo bokk benn melokaan bañ bokk su dee yaddan bi yaddin bu dee ni dafa doon échange am indi wala yaja wala yajuusu tafaadul fi jinsil waahid du dagan ñuy gënalante ci loo xam ne benn cër kese la benn melokaan kese la fii maa yu daxar min al fawaakih te lañ mën a denc denc bu yàgg ci ci fruits ya al yaabisa yu wow ya wa saairil idaam ak lépp loo xam ne dañ koy rëndee mi ngi noonu di ko teg ca nda ndawal ndab ya wa taami ak ca lekk ya wa sharaabi ak ya ñuy naan mi ngi noonu illa al maa xanaa lu dul ci ndox kese wahdahu wa maxtalafat ajnaasuhu loo xam ne dafa wuute ay melokaanam min zalika ci loolu wa min saairi al xubub ak ci mboolem pepp yi wa simaar ak meññeent ya wa taami ak lekk ya fala ba'sa bi tafaaduli fiihi yaddan bi yadin dara nekkul ci ñu changé ko mooy weccante ko loxo ci loxo wala yajuusu tafaadulu fi l jinsi l waahid du dagan ci la nga xamee ne dañ koy weccante ci benn melokaan minhu illa fi l xudari wal fawaakih xanaa lu dul ca la nga xamee ne ni moom mooy lujum yu verte ya lujum ya ak la nga xamee ne ni moom mooy fruit ya mi ngi noonu bokk ala kulli xaal fii day wax fii ci ne lim la doon jàngal sànq fruits yi bokkuñu ci légumes yi bokkuñu ci waa ji indiwoon ay fruits masala kii dafa indi ay mango mango mango la waaye mango yi bokkuñu kii am na droit indi deux kilos mango waa ji jox ko un kilo mango ñu échangeante ko lu waral loolu ndax loolu ay fruits la légumes yi naka noonu kii daa indi tamateem moo gën a rafet sa tamaate nga jox ko deux kilos mu jox la ci un kilo lu mel noonu la ñuy wax ci ay ya nga xam ne dafa demee noonu ci gàttal mbokk bu ñu xoolee lu mel ne mazhab Malik ñoom dañu naan yi araam ci ñu koy échange ba pare bañ caa ëppalante mooy loo xam ne dees na ko dunde te dees na ko mën a denc lépp loo xam ne dañ koy dunde te mënees na koo denc ceeb yaag dugub yaag yu demee noonu ñu ne lu mel noonu kenn du ko échange ba pare bu dee benn melokaan bi la ñu ciy gënalante bu dee ne beneen melokaan bi it ñu koy séparer tey ak ëllëg loolee mooy la nga xam ne mooy mazhab Maalik kon lépp loo xam ne nii du lu ñuy denc di ko dundee na doon na alors tamata yaag naaja yaag xaal yaag ay orange yaag ay légumes yi nga xam ne dafay nekk ci suuf pataas yaag yu demee noonu nga xam ne kenn du ko denc di ko dundi ñoom li ñu ciy wax mooy lu mel noonu échange ko dugg du dugg ci ci ci ci buntu riba loolu mooy la nga xam ne mooy li siiw ci mazhab Maalik mi ngi noonu soo demoon ci yeneen mazahib nag wax nañu leneen masalan ku mel ne mazhab Shafi'i moom lu muy wax muy déedéet bépp façon ñam maadaama ñam la rek bu dee ñam bi benn la kenn du ko ëppaleet su dee dafa safaanoo it kenn du ko échange lu dul yeddan bi yedd boo demoon ci lu mel ne mazhab ay Ahmad ak ak Abu Hanifa ñoom dañ naan la ñuy natt wala di ko peser riba mi ngi dugg ci loo xam ne dañ koy natt wala di ko peser kenn waru caa ëppalante mais loo xam ne kenn du ko natt kenn du ko peser masalan xaal yaa ay yu demee noonu mu ñu lul riba amu ci waaye daal ci gàttal mbokk julit ñun yàlla yombal nañu lu bari ci yii dañoo dajeeg moom ci téere bi di ko jàng waaye jafe na kenn ci ñun di jëfi lu mel ni léegi nit ñi yàlla yombal na ab xaalis nit ñi seen échange yépp léegi ci xaalis la aju am maa nag bu yàggul dara xaalis tasaaroowul sun maam yi seen jëflante yépp trop la woon pël bi soowam la am li muy am yëpp ci soow mi la koy amee baykat bi dugubam la am li muy am yëpp dugub bi lay def échange naar ga xoromam lay indi ainsi de suite ainsi de suite mais falilahi alhamd yàlla yombal nañu léegi ba loolu li ñuy jàng lépp def nañu nit ki jëfe ko lañ ciy terminer mooy lépp loo xam ne dala caa lënt ndax lii su ma ko defee échange day dagan wala du dagan la gën a dal xel jaayal la nga yor ñëw jënd la kee yor su ko defee moom benn muskil di am ci wàllu googee bokk kon lii mooy la nga xam ne moom la yàlla dogal te ñu war koo jël yàlla na yàlla dëpp la ñu ak gërëmam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain jël saaku gerte ne temps laa koy jaayee loolu dana dagan moom la ñu tuddee na doon loolee ci ay mango la ay gerte la ay nangam la nit ki am nga droit teg benn mbir ne lii laa koy jaaye waa ju xool ak bëtam ñëw daal di koy jënd islam la muy wax foofu rek yow it bala nga koo jaay na nga ko déplacer wala nga natt ko ba xam ni mu toll mais daal ki nga xam ne moom da koo doy mën nañu gis saamu mango wala jóorub xaal wala jóorub gerte ngeen waxaale ñu jaayante ko fekk kenn natt ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam waaw waaw loolu dana dagan su dee ne tool ba ñor na islam lu mu koy bañ rek moo ñuy jaay tool bu ñorul bu dee tool bi ñor na ngeen dëppoo ci à peu près tool bi ne lii la war a génne su boobaa ngeen jaayante ci wàllu googee islam dina nangu loolu islam di bañ rek mooy tool boo xam ne ñoragul ngeen jaayante ko ndax mën naa baax mën naa bañ a baax mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaw loolu laa ne la daganul dama indi sama non parfumé di la ko jaay di di ci borom bitig bi ñu ne parfumé bi mi ngi jar vingt mille non parfumé quinze mille ma ne kon dama lay jox non parfumé teg ci cinq mille loolee mbokk daganul mi ngi mel ni dama lay jox cent kilos non parfumé teg ci trente kilos ki teg trente kilos bi ki teg cinq mille bu ñoo yem ceeb buñ koy échanger dañ koy yemele rasul sallallahu alayhi wasallam dafa am ay lenn ci ay zakar yu jóge xaybar wala feneen ñu indil ko ko tàndarma yépp rafet mu ne waaw lii ah zakat bi yépp ni la mel ñu ne ko déedéet waaye dañ doon def bu ñu jëlee ñaari kilo ci tàndarma yu sew yi jënd ko benn kilo ci tàndarma yu rafet ji yeneen tibaare sam ne leen loolu riba la bu leen ko defee bu ëllëgee jël leen ñaari kilo yooyu ngeen jaay ko dem jënd ña jënd ci kilo li kon loolu su boobaa yow am nga droit sa non parfum boobu nga jaay ko soo ko jaayee ba jël xaalis bi su boobaa da nga dafa jëmb sa parfumé am magal échange bi nekk ceeb kese wala dugub kese loolee islam du nangu loolu wallahu subhanahu wa taala alam ah bismillah naam naam waaleykum salaam waaw waaw ala kulli xaal bokk na ci loo xam ne ni ab fitna la ca boo koy wax ci mbooloo yu bari sax day jaaxal nit ñi waaye nag loolu la boroom xam-xam yi wax mais xadis boobu ma leen doon wax sànq rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne yàlla rëbb na riba ka koy bind ka koy seede loolu moo tax boroom xam-xam yi ne liggéey ci banque dafa xaraam liggéey ci banque dafa xaraam suñu waxee liggéey ci banque dafa xaram nag ka banque ba embauché ka keneen embauché yóbbu ko ca banque ba muy liggéey ñoo yem bari na ñu ngeen gis ci banque yi ci kees yi c'est pas des banques yi ñu bëri xamuñu ko bari na ñu ngeen gis foofu ñu yor nekk ci kees yeeg yëpp beneen service moo leen moom jox leen banque bi comme boo demoon lu mel ne ay Sonatel ak ay yeneen yooyu bari na ñoo xam ne c'est pas des des des des des agents de la Sonatel ay yeneen service ñooy leen fa yóbbu. su ko defee daal loolu ñu xam ni bépp doomu julit bépp doomu julit maa ngi ciy wax ak kenn ci doomi julit ci doomi jàkka ji yàggul dara bépp doomu julit bu yàlla nattoo ba ngay liggéey ci banque ngal la waay sa xëy sa gont sa yéene sa kër kër yépp mooy utile leneen liggéey lu bokkul ak liggéeyu banque loolu ndax la nga xamee ni nii ah borom xam-xam yi wax ci tombeeg banque dañ ne loo fa mën a liggéey fobee rek baleeg lu mu mën a doon loo fa mën a liggéey loolu daganul am na nag ñu gën a garaawle mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ca compte yooyu ñoom di dugal intérêt bi génne intérêt bi waaye ala kulli xaal daal ku mën a moytu liggéeyu banque daal na ko moytu allahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ah waaw beneen bu ne ah waaw mango ji waaw loolu loolu moom jàppale ñun ñëpp xam nañ ne daganul ñëw joxe siwa mango ngeen waxaale waa ji gis longueur siwe bi jàpp ne lépp mango la ba mu fecc kaw ndekete yow ay carton nga dugal ci digg bi ba nga xamee ne imma mu jël ko yóbbu këram wala mu sotti ko gis loolu loolu moo ko rëcc la mooy yeneen tubaab sam dana man rëccana fa laysa minna ku ñu ku ñu ku ñu wor bokkoo ci ñun bal am na xaalis bu gën a garaaw sax dana man rëcc fa laysa minna képp kuy wor bokkoo ci ñun ñu ne kon même bu dee yii fër nga ko def def nga lu garaaw a garaaw même bu dee yéefee rek dane képp ku war bokkoo ci ñun bokkul nag képp ku war ñun jullit ñi kon la nga xam ne def ko bi yéefee sax dafa xaraam def ko jullit waxi noppi loolee ñu bàyyi ci xel bu baax yonent bi alayhi salaam ñëw na ci marché bi gis gaa yi teg ay kees di jaay kees yi noonu mu romb benn kees ci lenn li ko yàlla di xamal dugal loxoom làmb lépp tooy ci biir ci suuf mu ne waaw ma haza ya sahibu taam waaye yow lii nag lii nag ah yu mu yàlla yónni day daa tawte mu ne ko lu teewul nga jëli taw te teg ko ci kaw ku ñëw gis ko mais sinon lan ngay def da ngay ñëw jënd kees dem ba sa kër nag gis ne ndekete la ci suuf yëpp daa xuur loolu mbokk moom ak wor la kenn waru koo def ci dara rawatina ab oto ngay jaay kër ngay jaay lépp looy jaay ngalawaay lépp lu ci nekk ragalal yàlla leeral ko ba mu leer mais jullit du war mbokk jullitam bal jullit du war sax ab yéeféer ndax day tax ëllëg si biir nga tilimal deru jullit ñi te fekk ne loolu yow yaa ko def mbokk kon mi ngi noonu yal na yàlla tàllal ne waaw te ñuy yem foofu rek dafa xaw a guddi ñu yemale question nan ba yàlla dajale waat ñu fi rek yal na yàlla tànnal ñu alal yu dagan te tey tànnal ñu suñu njabootit liggéey yu dagan te tey yàlla barkeelal ñu fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain